gouvernement Italie ak gouvernement Sénégal à travers ñaari ministères yi ministère des affaires étrangères ak la Farnesina ngeen toog vraiment pour régler ce cas là parce que c' est des millions et des millions d' euros la sénégalais yi di cotiser foofu sénégalais si xayma toll nañ ci cent cinquante mille cent quinze mille ba cent cinquante mille te pratiquement quatre vingt dix pour cent yi dañuy liggéey donc nag xaalis boobu war nañ si mën a taxaw vraiment liggéey si vraiment pour que sénégalais yi mën a jotaat seen xaalis. li nga xamee daal vraiment bëgg nañ ko mooy le problème de des des des de des euh, euh, des des visas aussi il faut ñu régler ko madame la ministre parce que problème bi nga xam ne mooy posé wu muy Italie muy Espagne vraiment mën nañ jàpp ne nag moo am foofu parce que juste pour déposer pour am rendez-vous dañu la koy fayee ko ay quatre cent mille ay six vraiment mu nekk lu bëree bëri bëri te yow soo demee sax ba ñëw dugg si rendez-vous bi ñu ne la may ñu la visa duñ la delloo sa xaalis donc yow nga am na ñoo xam ne mën a indi sa yaay sa papa wala sa jabar ak sa doom mu ngi durer six mois et rendez bi doo ko mën a am en l'espace de un an de fekk yow fayoon nga xaalis donc nag am na arnaque bu mag boo xam ne vraiment lu ngeen ñu ci mën a dimbali ñu jël leneen li nag mooy ne mooy soxla nañu ay oto l'âge des voitures de huit ñu dindi ko yóbbu ko minimum ba quinze ans on a ko fi jërëjëf. je vous remercie Abdoulaye Wilane avez la parole suivie de ay Sow Diawara. Euh, asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu maa ngi jàkkaarloog euh, madame la ministre de africaine des affaires et du Sénégal extérieur tey lañu ñu njëkk daje fii nga may ma ci dara jaay Adja Yacine Fall ci dara darajaay ñi la yàlla dénk muy sa njaboot waaye Ablaye Seye ma jox la nuyoo doom ñaanal la yàlla lañ la dénk yàlla nag ci am ndam yàlla bul ci rus xam naa waalo waalo bi sama gannaaw xam na ne diggante njaarnde euh, waalo yépp rawatina gaaya ku fa sant wele boo juddoo Saalum itam dara teqaliwu la ak waalo yaakaar naa ne li ñu wax yépp su ma amoon benn xalaat bu ma lay suggérer mooy nga xool ci sa calendrier ak ses collaborateurs naka ngay defee journée d'étude ou journée journée d'échange booy dajalee député bu mën a ñëw ñëw waaye particulièrement sénégalais yi nekk extérieur ñi leen fi toogal boole ceeg député ou parlement sous-régionaux yi nekk fii ak les groupes d'amitié ngeen toog waxtaan parce que loolu dina indi euh, formation ak mise à niveau mais également dina indi nit ñi gën a wu ci nouvelle vision bi nga xam ne nii moo nekk en rigueur en application bu loolu weesoo madame le ministre dañoo daje tey ngir euh, jox sañ-sañ njiitu réew mi ngir mu méngoo li nga xam ne mooy convention bi ñi bu Union africaine pour la coopération transfrontalière et la coopération euh, ñu koy wooyee la convention de Niamey moom la ñu dajaloo te ci biir commission technique la feeñ mooy solidarité gouvernementale ministre yi fa teewoon muy euh, kii doon assurer sa intérim ak ministre bi nga xam ne mooy teewal toujours mooy seede diggante gouvernement beeg parlement ak sa secrétaire d'État teew nañ fa ku déglu rapport bi xam ne mel na ni. li nga doon xaar ci ñoom ñu waxal la ko fa wax nañu ko waaye ku xool remarque de forme à incidence de fonds yi nga def xam ne yaa ak say collaborateur saytu ngeen bu baax topp ngeen liggéey bi ci kaw loolu maa ngi ma maa ngi sargal les hauts fonctionnaires du ministère nga xam ne tout régime confondu de manière impersonnelle et apolitique ils servent l'État la République et la nation ma leen di rendre hommage di la ñaan permission boobu loolu nag li may permettre ma wax mooy man dama jàpp ne intégration africaine ak euh, coopération transfrontalière yi bu ko Sénégal di waxtaanee dañoo am benn cas d'école boo xam ne foofu bu doxee Sénégal mën a xalaat doxal feneen boobu bu doxul Sénégal jarul muy jéem feneen bi ci njëkk mooy suñu diggante Gambie foo mën mënta jaar Gambie Sénégal mooy frontière am ba ca tegu te boobu moo waroon njëkk Sénégal bu muy dem indépendance moom Mali demandoor indépendance ba di li tawfeex mooy suñu diggante moo Mauritanie te loolu kenn du la ko jàngal ndax yow da nga cee xam nga ji ba ne mos waaye li nga xam ne nag mooy tawfeex yi nga am te beneen ministre amu ko fii mooy ñi fiy wax affaire diaspora ñëpp rawatina ñuy wax Amérique wala tukki ci yeneen réew africain yi lu jàngaluñu la dara da ngaa ne teel rek ak sa tuutaay dégg nga ak sa jekkaay dégg nga waaye di déglu rek waaye li ñuy wax yëpp xam nga ko kon am nañu yaakaar waaye la ministre jàpp naa ne soo xoolee li ma wax Senghor ba muy wax intégration par cercle concentrique kenn mënut fee sof leen sof sof rek kenn mënut fee sos sof rek lii sama collègue Guy Marius Sagna wax ma bëgg nga bàyyi ko xel bu baax ndax dañoo bëgg yow comme ñun bu ñu demee CEDEAO du ñu am benn gàcce bu ñu am benn problème loolu moo tax ma lay ñaan bul nangu mukk Sénégal ñu gisee ko ci sous-région bi une république bananière où suivre le roi suivre la loi bul nangu mukk te dinañ ko wax fii sa kanam parce que yow yaay dem bitim réew say mor naan la waaw lu xew lu tax ñu arrêté tel ministre lu tax ñu bloqué diw kenn bañul ñu def réduction des comptes kenn bañul ñu càmbar waaye bu ñu koy def nañ sukkandiku ci décision police wala décision de justice jóg rek dinaa ngi tukki am ay relation internationale bala am ngay liggéeyal sa dëkk ñu téye la ci bi loolu bu ko Bassirou Diomaye jaxaar fay defee ak gouvernement am fàtte nañ ne Karim Wade CEDEAO joxoon nañ ko raison ma ne ñun bëgguñu bëgguñu Diomaye Diakhar Faye def les mêmes erreurs que Macky Sall ou lay Wade foofu lay daanelee di wax ne lii nga gis fii warul tax kenn ragal maa ngi ñaan député yëpp toute sensibilité politique confondue su DPG amee ne débat bi yéeg ci niveau Sénégal ak intérêt Sénégal ak image du Sénégal pas de débat de commune caniveau pas de politique politicienne uniquement les intérêts supérieurs du Sénégal je remercie. ay sot Sow Diawara, vous avez la parole, suivi de Daba Wanyan. Monsieur le Président, Madame le ministre de l'intégration africaine, Madame le ministre euh, des Affaires étrangères, Monsieur le ministre du Travail en relation avec les institutions, Monsieur le secrétaire d'État chargé des Sénégalais de l'extérieur, Mesdames, Messieurs les hauts fonctionnaires qui accompagnent les ministres, chers collègues. Monsieur le Président, ci yow laay jëkkee sama wax. ndax defe naa ku wax tey da tàggatoo kon monsieur le ministre euh, madame monsieur le président dañ lay gërëm di la sant mun nga muñ mun nga encaisser te député bu la soxla nag bu ñëwee sa bureau nga recevoir ko kenn ñaanul audience da